salaamaaleykum ami fidèle internaute de Dakar Buzz salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéenay topp waa Dakar Buzz waaye yéen ñi nga xamante ni yéenay bàyyi Abdou Saliou say xel ah, ci kàttanu suñu boroom man Abdou Saliou chaque jour ni ma koy defee ah, sama xarit sama doomu nday yaa oustaz <laughs> nee lii man rek maa ko sañ man maa koy déranger n'importe quelle heure waaye tamit mu doon nit ku baax nit koo xamante ni day wax dëgg yàlla ah, man jàpp naa ko ndax diineem jàpp naa ko ndax ngaram jàpp naa ko ndax bëgg gi nga xamante ni moom la bëgg Serigne Babacar Sy waaye bëgg gi nga xamante ni moom la safoo doyloo yaakaar Seydina Mohamed ndax léppam Seydina Mohamed la sallallahu taala alayhi wa sallam gis nañ fan yi ñu génn nag réew mi yëngu na lool boobu ba léegi waxu ci mi ngi toog jàpp njàmburam tey nag ñu seet si ko war a waxtaan moom ay point yoo xamante ni euh, ñetti point doon ndax waxtaan ko bëgg ñu tënk ko euh, yaa oustaz ma bàyyi la nga nuyoog ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan ak ñi lay topp fii ci biir Dakar Buzz bismillah law naa sabat xadruhu ayatuhu izaman ahismuhu xiina yudu a daari sa rimami borom bariiru or bi saaxibi naasiril xaqi bilxaqi talaati lxaqi bilxaqi min alxaqi ila alxaqi xaqu xaqaiqin walxaqu xaqahu wala xaqa yaxiqu bi xaqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi alhuda bi haddiin ila yawmi diini saaliw bi dugg ci biir turam rek ak abdu bi mu tegale rek moo tax mënu ma ko wax dara kon ma ne ko ku lëj la nga ci ay nelaw la ma yee maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar ndax euh, gis nga xol du tricher mm-hmm. dafa am bés ma bañ a tudd benn saxaaba ci saxaaba yi am kuy ñëw mm-hmm. mu ne kii di ñëw ni ma soofe fekk yonent baa ngi toog ci jotaay bi mais yonent bi lu nit wax ci xelam rek xabibun bi asraarul xulub bi malaaka jibril dee ko ko mhm. mais gis nga li mu naan waajee di ñëw ni ma soofe bi waaji egsee di nuyoo da koo tëb daa tëb ki naan ko dafa soof te ñoom ñaar yëgoowuñ mhm. yonent bi ne ko lu la teree nuyu diw mu ni damaa amul cofeel ci moom rek yonent bi ne ko alxulubu tatara li ngay bañ ci nit

waaw kay maa ngi lay ah, nuyu. ndeysaan nuyu waa Dakar Buzz yëpp. Mhm. ñaan yàlla teraanga bu nit di am rek. Mhm. ci dawal oto ci tukki ci lu mënti doon yàlla na yàlla def ko. amiin defal ko barke war a faanaa la ko nuyu naa ñëpp ziar ñëpp. macha allah euh, yaa oustaz euh, kontaan naa ci yow euh, di la wax nii cofeel gu am ci man benn rek am naa ko ci yow fukk yaa oustaz ñu gis jamono bii ñu nga xamante ni réew mi Sénégal yëngu woon na lool waaye li mu yëngu-yëngu dalaat na ñu denc ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ci kaso bi ak ñi nga xamante ni denc nañ leen ci kaso bi fan yi ñu nemmee ko ay grève de la faim yoo xamante ni ñu ngi koy def yaa oustaz démb ma tëdd nelaw nelaw mënumaa nelaw ma ni est-ce que ñii nga xamante ni ñooy def grève de la faim ci biir prison yi ndax bu ñu deewee la wala dañoo topp seen nafsu bakkan def nag lu lislaam diglewul coobare bakkenu doomu aadama la mhm. te bu ci nit deewee mën nañ ko ko àtte xaru mhm. Abdou Saliou yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale jàngale yonent bi mu ngi ci téere yi ñëpp ngi koy jàng mhm. fa inna allaha la yudiyu ajral muhsinin yàlla du sànk jëfu koy def lu baax bu ni da nga doon def lu baax ba ñëpp seetaan la ci ñu am fun la yóbbu te dem kaso bi nga dem kaso du gàcce waaye xanaa yoon yonent yi defoon grève defee loo gisul yonent def ko mhm. te yàlla tere ko ko rek boo dee jullit war nga ko moytu mhm. jullit yi mosoo dégg bu de faim mhm. tëj nañ leen ci ay kaso sunu sëriñ si ku mel ne sunu che sunu maam cheikhul xadim radiallahu taala anhu fi mu jaar metti na mosoo dégg def grève de faim ak ak ak ak yu dul jeex gis nga wara yenu lor yi la nit ñi di teg yëkkatiku la ci doomu aadama comme te jamono fi mu toll dafa naqaree waxee naqaree déggee te ñu bari seen aliwe soriwul. Mhm. seen cofeel la ñuy topp yow bu boobaa ci jamono boobu boo ci tolloo da ngay limiter sa ay wax waaye li wér daal ak ku mën a grève de faim bi ci gën a siiw mooy bu Sonko na ko bàyyee. Mhm. bàyyi googu mu koy bàyyi seetaan yàlla ak boppam parce que nag fa inna laaha laa yudii'u ajral muhsinin ni ma la wax rek yàlla du sànk jëfu koy def lu baax mhm. moom ak keneen ak keneen ak keneen man daal loolu laa ci xaru mhm. mais moo tax en général euh, kaso ci wàllu euh, char li ñuy gis ni euh, képp kuñ ci tëj boo génnee maanaam sa sa daraja bi nga amoon day wàññeeku Sénégal ñi ma gis ñëpp ñu gis leen tëj leen ci wàllu char bi ñu génnee seen daraja dafa wàññeeku comme mosuma fa dem te yàlla bu ma fa dem te ñi fa ne yàlla nañu génn damay jàpp ne gis-gisu doomu aadama la rek mhm. parce que yonent jaar na ci kaso génn darajaam yokk mhm. sëriñ jaar na ci kaso génn dara yokk ça mhm. ni ci seen jaar kaso Ablaye Wade jaar na kaso bi mu génne kaso la dara jaam yokk ndax ci la doon président wala déet amaana moom yàlla dafa namoon ci moom kaso rabbi xabayta fa raditu bil xadaa taxkumu ma tashaa fa xukmuka mada sëñ Babacar dafa ne woon yàlla rabbi yow yàlla xabayta yaay dogal faraditu nangu naa bil mhm. xadaa lépp loo dogal naa feebar naa dee naa dëdd naa tëdd kaso sëñ Babacar ni sama yoon nekku ci ndax yàlla yaa ko programme woon ca ëzal taxkumu yaay atte woo maa tasha nu la ne yow yàlla fa xukmu ko li nga bind sama jebi te atte ko ba pare ba baa wéy na mhm. loolu la waxoon kon damay jàpp ni tëj yi ñuy tëj nit ñi dafa bokkoon ci seen dund guddee kaso moo gën fanaani bàmmeel guddee kaso moo gën fanaani bàmmeel lu tax loolu parce que yàlla mu bàyyi la tey tey tey yàlla rey jaam ko nguuram wàññiw ko nguuram mhm. nga dem kaso yokk ko nguuram wàññiw ko nguuram mhm. mais am na ay nit ñoo xamante ne oustaz Assane Seck mu ngi kaso waaye ma fay defar ay nit di leen jàngal mhm. kon yàlla dafa programmé woon ci mission ka ni am na ñoo xamante ne ci biir kaso boobu war nañoo dégg alifun baa un bu départ ci gémmiñam Ousmane Sonko est que yàlla mënu ko def euh, ay at di ñëw président est que yàlla amul ministre bu ko war a booleel foofu bu mu bokkal jikko bokk ak moom ko mënoo leen faw nga fekk ko ci kaso parce que war naa tëdd vingt ans ko àtte dialogue bi muy dialogue ak moom est-ce que moom tey bu génnoon mënul jàppale ko mu génn mu samp ko fekk wërsëgam bi tarde ci biir kaso yàlla ni ko dama la koy dabaatali ci Ousmane Sonko. Mhm. waaye pour ngeen gisee yéen ñaar faw ngeen daje ci kaso bi. Mhm. est-ce que dégg ma. Mhm. te yàlla ni par dina fa dugg bu fa duggee am na ku mu war a xam am na lu ñu war a jëflante ñoom ñaar. mais bu boobaa nag kee mënta génn a dugg ndax kii lab géej ki ko bëgg a dimbali itam mënta ni ci biti di ko yuuxoo naan ko fii ngay jàpp faaw mu dugg ci biir géej gi jëli ko Abdou ñu doxal macha allah euh, ñu gis ni heure bu jafe yu mel ni amee euh, Sonko bu nekkee ci wàllum yoon ñu gis euh, maanaam accident yi day bari analyse boo xamante ni man sama xel day ñëw rek gis nañ fi accident bi amoon ci diggante fan yi ci diggante Louga ak Saint-Louis ñu gis accident fan yi ñu génn ci diggante Kaolack ak accident yi nga xamante ni ñoom ñoo ko jiitu mu mel ni coïncidence la wala peut-être ay mbir la yoo xamante ni euh, dafa dafa laxasu ci mbir yi. du benn mbir bu laxasu ci mbir yi Abdou. Mhm. faraluma benn politicien guddi yi ñu toll sax laa ko gën a pare. bi ma jàngatee Sénégal ba leer ni ma ni ku nekk sa bopp la ñor la terre reculé waat naa xam ni koo fi faral ak sañ-sañ boo àndeek moom ci fitna ngay dëkk. Mhm. parce que réew mi dafa mel ni dañ koo tabax ci toolu poobar réew mi metti poobar metti waaw ndaw ñi yarwuñ mag ñi amoon yërmande ñu bari seetaan Sénégal ñu naan na kilifa yi wax mais kilifa bu waxee ñu saaga ko na na noppi imam Shafii dafa waxoon ni wajatu sukuuti matjiran fa lazimtuhu isa lam ba ribhan fa lastu bi xaasirin ci marché bi laa dugg marchandise mi jaay imam Shafii nee na maa daagu ba ñëw fekk noppi muy jaay ma jënd ko mu bi ma defee sama inventaire ba pare xam naa ni pertuma parce que noppi fa la mbir yi nekk te ngay boroomi njaboot te boo waxee ñu saagal la sa njaboot yëngu da ngay préférer noppi ngir mën a sagal sa njaboot loolu kese la mais fii réew mi toll nii nii nii nii nii. Mhm. dara doxul ndaw ñi yaruwuñ mag ñi yi tamit boo dee seetaan télé ci politique gu Sénégal da ngay am kersa da ngay seetaan ay mag yoo xam ne li ñu wax yëpp di xaar seen mbuus yu tooy moo leen ko jaral. Mhm. bu boobaa dootuñu xool seen njaboot am ñoo xam ni ndomba tànk lañ bëgg ci réew mi ñun ñi nga xamante ne ay jàngalekat la ñu wax ay oustaz la kenn ku nekk ñemetoo wax dëgg ji ñun ci suñu biir yaa ngi changé ay yàlla yi yaa ngi mhm. yaa ngi yaa xool lu neex nguur wala yaa ngi xool ko lu neex keneen kenn ku ci nekk bu réew tollee foofu nag xamoo fu dëgg ji féete waaye Baye Abdou da ngay arrière tak taxaw da ngay arrière taxaw mais est-ce que arrière taxaw boobu baax na ci Sénégal parce que euh, à tout moment euh, réew mi mën na jàpp ne mën na yëngu yonent bi nee na ñaar ñooy baax réew ñoo koy bonal sinfaani min ummati isa salahu salaha nnaas wa isa fasadu fasada nas al umara u wal fuqaha u yonent bi nee na ñaar a nii bu xeet baaxee ñooma bu xeet bonee ñooma boroom xam-xam yi ak njiit yi parce que njiitum réew mi lu muy def day dem waxtaan ak boroom xam-xam yi di mooy xalifa yi mhm. wala déet mhm. bu ko xalifa yi tegee ci yoon ak buñ ko tegul ci yoon yëpp ñun suñu xam-xam eggewu fa parce que waxtaanu biir néeg la xam-xamu xel munu faa àgg mhm. mu génnaat ñëw toog du nettali kilifa yi tamit amoo accès ci ñoom dem ba naan leen waaw noo wax noo waxtaan ak la république doo ko def mhm. kon te yaakaar naa bu réew tollee foofu nga bokk ci ñu njaboot te ñu yilif la da ngay xool li fegu te di moytu mhm. jamono ji jamonoy nu mu tudd euh, euh, euh, fal sa bët la mhm. di xool naka la réew mi di doxee bu voté jotee nga xool ko sentir nga votel ko Abdou fii Sénégal dañuy wax ba dee kenn ku ne ak ki nga faral ki nga faral nag tant que yaa ngi ci moom doo gis njuumteem njuumteem doo gis erreuram doo gis defetam lu mu def da nga naan baax na yow sa mbër mi nga gën a sopp saa yuñ ko daanalee da nga naan dañ koo jekku ci sëriñ mhm. te bu daane nga di ne naa leen jàmbaar la kooku ku ko mën a yey ci waxtaan kenn bu dee man diw mooy euh, booy ñaa sama mbër mhm. buñ ñu gëm booy ñaa daanee la neewoon naa la booy la mhm. doolee ma tollu foofu kañ la suñu werante di neex moo jaaxal ñëpp man amul kuy toog man ni Mouhamed Mbaye dañuy waxtaan ci politique amul xanaa moom fi mu toll nii yàlla xam nañ dafa mel ne dañ ko tabax ci toolu poobar ba pare di ko jëmbatee tool wala kaani ah dafa dafa de. dafa <laughs> doy waar gaal ñun ñi war a wax ci diine nekk ci télé yi itam boo boo ñu dee seetaan léegi da ñuy xeeb parce que ñun rek ñoo yor sàmba mbañ mbayaan gi. njuufee ci média yi ñun rek. wax mais est-ce que tamit loolu du jamono moo jamono moo toll foofu parce que aussi tamit bu fekkee boo waxee ci euh, Macky baax wala nga wax ci Sonko lu baax benn waay woo la bokkal la benn 2 millions may la ab may la may la terrain jox la oto aussi tamit dangay ngay bàyyi li nga doon def pour jàpp ci loolu. man Mouhamed mbay maa jël engagement ni bu ma président de la république woolu woon ma sol sama ñetti abdu bu rafet taal sama oto jubali pale noo gisee réew mi ma ni ko réew mi ni ko gisee président de la république may nga ma kàddu mu ni ma waaw. ma ne ko nii de gisee naa ko nii de gisee naa ko bu may waaj dem itam di xool balaa may am mbégte bu may dem mu bokkal ma loolu moom bëgg naa ko. Mhm. bu ma sañoon itam bu ma amee accès dem prison seeti Sonko. ni ko ah góorgóorlu te nga muñ de inna allaha maa sobirin yàlla mu ngi ànd ak way muñi de. Mhm. defaloo yàlla lu tax ndaw ñu bëgg la de. nit a fii politique ëpp la xaalis téeméeri junni yoon ëpp la la ko te yëpp te bu àddoo kenn du ko déglu te yow nit ñaa ngi lay déglu xale yi ci biti yaa leen teree lekk yaa leen tere naan loolu du sa jàmbaar du sa dëggu yàlla la neex mu def ko ci yaw am na ku la gën a dëggu ci réew mi am ku la gën a jàmbaar am ku la gën a maandu yàlla nee na boo doon financé ay milliards te yëguma pour nit ñi bëgg la dangay sonal sa bopp law an faxta maa fil la jamian maa allafta bayna xulubihim fa allaha allafa baynahum toogal te koo fi musa gis ñu tëj ko génn na bi mu génnee am na lu yàlla na nammaat ci moom xëy na am na koo fi war a xamanteel kooku moo fii sa mission yow dundeel noonu <laughs> da nga lekk te nga naan man bu ma président di woo may Mhm. man damay toog tey tey may xalaat man ne président Macky Sall ku yaru la déggaguma mu tontu doomam bu góor itam ku yaru la. Mhm. ndax déggaguma mu communiqué ci politique. dafa mel ni bokkul ci politique bi Sénégal mhm. est-ce que yaa ngi remarqué loolu. bu baax ma sentir ni soxnaam itam dégguma muy tontu. imam nañu bàyyi ñuy ñëw après naka la ñuy mel man fa laa ko teg. yaru na jabaram yaru na doomam yaru na. man bu politique doon politique jamono yi ma toll tembe nga laaj ma ngay faral. Bougane mi may fay weer lay falal ndax damaa njortu ne bu nekkee président de la république dinaa am passeport diplomate man fayda laay wax de bu ma amee passeport diplomate itam xam naa këram xam naa njabootam. Mhm. Bougane sama patron moo nekk président de la république bu ma demee ba nekkatuma seen TV ma nekk ci beneen télé itam ku sentir faral ko faral ko. Mhm. mu jeex man tant ci Bougane di ko faral. Mhm. parce que nit du jéggi di dem feneen. man du kàddu yu rafet na euh, yaa oustaz euh, samedi bii ñu génn euh, xawma ma dimanche jumaay Tiwaawan ji Abdou Aziz Ndiaye jëf na ci jëf bu am solo mu mel ni loolu du tey la ko commencé ma gis ay ndaw xëy statut ko naan na ñëpp jënd huile mu wane exemple boo xamante ni chaque jour day wan ndaw ñi ni que ni lii jëm ci yàlla wala lii jëm ci yonante bi wala lii jëm ci Serigne Babacar Sy man waruma leen cee jiitu. dama ci def vidéo ci saa si sax la ma message moom. Mhm. dama oustaz jërëjëf. parce que dama tëdd tëdd mënu ma tëdd parce que man yàlla bindul Aziz njaay li ma gën a neex mooy Aziz dama koy romb muy toog fii damay wàcc nuyonte ak moom gis nga xameel kenn du ko forcé Abdou nuyonte ak moom nangam nangam ba nga xamante ba tey defe naa benn la mu sa tegoo loxo ci xaalis. te mooy mhm. jour ma romb ko rek mu jël benn addiya yonent bi jox ma ko ñu tooñante noonu mu dem ma dem. Mhm. amul ci man soxla. boo xamante ne war na kaa dox aw ma ci moom soxla boo xam ne war naa kaa dox mais dama toog toog toog xalaat Abdou Aziz ni xaalis neexee parce que jaaykat warta noos bénéfice baay bañ a bari. Mhm. boo noosee sa bénéfice ngay noose mais nga xool li muy dund mu jël ci Abdou investir ci loo xam ne amu fa place tey bu jumaa ji pare woon est que day am place Abdou Aziz Ndiaye bu tardé julli est-ce que imam bi daf koy xaar déedéet mais mu jël alal ju toll noonu xool ay nit dajale alalam may xalaat loolu ni xaalis bari un million ba cinq cent millions ak la mu jotoon a joxe moo bàyyam ak keneen mu def lu mel noonu teral nga ay na yowén ma def vidéo ni maa ngi leen di ñaan ñun borom 1000 francs yi diwlin Zador ji xanaa xam nañu ko mhm. warga bii di jar cent francs Zador xanaa xam nañu ko vermicelle bi Abdou Aziz vermicelle bi xanaa ko couscous bi couscous bi Abdou Aziz xanaa na nañu ko dimbali nu ngir yàlla nga ibbi ay station yoonu Tiwaawan ak Touba fu nu sonnee te jaar ci station yooyu di jàpp di xéwlu diwlin ji ngay jaay boo ci mënee defar ay diw nga jàppale ñu ak ay parfum ndax ñun dañuy soxlay parfum même ay maraakis sax boo ci mënee def ñun ñu bind zador ci suuf nga defar ñu koy sol bu du mënoon am ay daamine zador bu gàmm jotee ñun ñëpp ñu sol ay yére daamine zador buñ ko mëntaan ay mbaxane am zador mhm. nit day dimbali nitam parce que abdou bu amee foofu delloowaat ko ci zawe Seydil Hadji Malick bi sëñ sëñ Mansour Sy Djamil nee na ni rien n'est trop beau mhm. ah, euh, euh, amul lu gën a rafet ëllëg ñu mhm. bàyyi Seydil Hadji Malick ji Abdou Aziz nag bu ci def lu toll noonu ñun war nañ ko sagal macha allah war nañ koo sagoo démb rak magam magam seen taaw ba masata ñu ngi ciy waxtaan mu xool sama estati ni ma Ahmed lii rafet na de man ko rafetul li Abdou defa rafet mm-hmm. am na ku ko ëppale téeméeri junni yoon te defu ko defu ko mais lii mu def dafa baax yàlla dafa di ci alquran alladina yunfiquuna amwalahum fi sabilillahi billayli wa nahari sirran wa galaniya falahum ajruhum inda rabbihim fala xawfun alayhim yaxzunun gaa ji bëgg na noo joxe yoon wi la ñu xamul yoon wi la ñu xamul Abdou nag daa yor cëbbal ci bu ci bu ci bu bu am doole gaa ñu topp ko nii nga ma ci laajee sax dafa sedd sama xol te barke alxuraan laaj la waxuma la laaj ma ci nga léeg-léeg nit dina invité mhm. dina am euh, émission ne laaj na ci nangam pour ma man cee wax man yàlla bindul may dóor kenn rek laa bëgg a dóor mu yonent bi te bi ma demee ba jàkkaarloog mi dina dóor naa ko noo ko dóore waaw bi rek wax ma noo dóore yonent bi li ma leex dëgg la sama xol bi mhm. gis nga euh, euh, Hamza man yonent bi rek laa man dóor moom rek laay wax yëg ko sama xol ba ma nee cëpp a Munawara jàkkaarloog pavillon bi di dox ma ne ko yow du ma la nuyu ki lay nuyu mooy koo xamul te xam naa ne xam nga ñëpp mais ci biir ñi nga xam am na ñoo gën a xam mhm. yow xam nga ni Mouhamed Mbaye basang yam daan toog di lekk mbiskit di wax ci sa tur bi di dogal mu dem bay bay ci réew yi yàllay dogal muy dem ci ay ronu bâche di la waxtaane yow xamoon nga ni sunu bisu ajju may après timis gi man ak yow faaw xamoon nga ni daañu daje mhm. yow yonente bi may dox jëm ci moom ni ko du ma la nuyu parce que xam nga ni yegsi naa sa waajangoog ne ko sama waaji yegsi na sa waaji sama waaji na waxal ma ko ko Omar ibnu Xataab yow nabi waxal ma ko ni ko sama waa ji egsi na Mouhamed ñëw ba jàkkaarloog moom ni ko mënta ne ay gént la wala yow nabi yaa ne nii sama bët yi taa nag man ko giiru giir ni mi ma daan tagg naan borom pavillon bu verte bi borom barrière or bi tëdd Medinatul Munawara ma daan wax Medina dugg ci sa réew mi jàkkaarloog yow yaa tëdd nii di sama soppe di sama xarit munumaa gëm li nabi kon yaa ngi yëg ni maa ngi wax ak yow nga may xool ma may dégg te yow itam yaa ngi jàkkaarloog man dawal sama bët ci ci bën bën yu bu ci biir mu ñuul ma ne ko nii rek la mënoon deme mais yàgg yàgg xamoon nga ne man ak yow ñu daje. ndeysaan wax ko ko réer ci saa waaye dama génn rek sama xel dem ci Serigne Bamba dama génn rek sama xel dem ci moom bi bayit bi mu ne thabbata anna rabbana lam yuridi la lahu fa mis la yaridi Serigne Bamba nee na yàlla buñ la joxootaan buñ la joxaatoon fooy ak bi joxaat la temps bu doy ni la bindaatal ku mel ni yonent bi xam naa ni jafewu la waaye yow yaa amatul envie boobu parce def nga ko ci njool maaka ba noppi mu ngi mel ni nga zee quatre-vingt-dix minutes mhm. dem bay génn quatre-vingt-dix minutes yële ni nga ko zeewee du bokk gii parce que fekk na bu boobaa sa koofur bi toj na ba noppi wallaahi sëñ Bamba ni ko quatre-vingt-dix minutes yëpp jox nga ko njool maaka yaa dóor cinq zéro buñ la waxoon kaay fubalaat itam zibile bee moo lay dàqal mhm. te kenn du wor weeru koor ba mu jeex topp naa fi lay sonal sa bopp mënumaa bëri grand mu tudd euh, euh, euh, nu mu tudd grand combat mhm. daan ba pare bay génn ñit ñi di zibile ñu naan ma kaay may yaaw jaal sens du ma yonent bi ma ni Sëriñ Bàmba loolu la wax yonent bi gëm gëm gëm bindam loolu ndax ci bindam laa gëmee loolu ba dem ci Màkka su ma yóbbu Màkka taalibe Sëriñ Tuubaa la mm-hmm. benn yoon la ma mës gis téléphone la ma dégg fii ci sama kër gi ni ma mën naa dem mën a yóbbu sama baay mën a yóbbu sama yaay yóbbu ma kenn ci sama famille te yàlla may na ma ko oto bi mu yor Range Rover 2023 la ay mm-hmm. milliards ay millions lay jar waaye oustaz dama yëg sa cofeel ci yonent bi te benn yoon la ma gis te gisee bi moo daw ba egsi sama kër di jooy fii toog di fomp ci musuwaar bi wàcc ci suuf laaj ma oustaz lu nu yonent bi defal ma ne ko bi mu tolloo ci sukuraat laaj na malaaka bi sukuraat ñaata la mu ne ko sukuraat téeméeri rab ñu tàngal ko ba mu tàng ñu la koy roof ba mu sedd sukkuraat ko gën a métti man ko yonent bi xeetam la jëlal sukuraat moo waral sukuraatam métti mu kottu ma ñu ma maa ngi wëllërante ak yow bi sama yaay di simmi ñu toog fa la ne ma waxoon naa la da ngay dem Màkka ren pareel am na ku ma léegi bu ngeen demee ngeen gisee. mooy carte ba fekk bi may mujjee gisante ak yow. jeex na tàkk. ci la sëñ Bàmba ni yàlla waqdi yàlla nag ma fajalal xawaa ijël la na aajooy ña nga xam ne daamu danoo sax fii xidmati jiite ma liggéeyal grand plateau bii ma naan sëñ Bàmba nee na sëñ Bàmba nee na sëñ Bàmba nee ñaanam googu mu wax yàlla ni ko wa hëblahum maaraamu waaye ñi nekk ci sama liggéey bi di liggéey yow yàlla maa ngi lay ñaan li ñu bëgg yàlla na nga leen ko defal man bugguma lu dul ziyaare yonente bi gëm naa baytu sëñ Bàmba boobu man jour laa bañu ma benn équipe ku ma jënd ma football waaye bu coupe du monde jegee wala coupe d'Afrique nag sama équipe rek laa jëm kenn mënu ci dara ah, muy Seydil Hadji Malick coupe du mooy lan xam xam nga xam naa jouer mhm. fu ne waaye bu ma Alaaji Malick soxlaa ma dellu si mhm. bu ma liggéeyee Alaaji Malick delluwaat dugaat naa ci championnat yi équipe mhm. bu mën a football te maa jël mën a xam sama njëkk ma footballal la macha allah fa tabarakallah yaa oustaz ma de tey suba ma yeewu gis benn vidéo boo xamante ni Euh, bisimilah yaa oustaz mën nga fomp fompul parce que waxtaan bi fi mu toll nii dama ne woon du question yi du bari de waaye Hamza dafa mel ni fi mu toog daaj nga ko de Hamza Hamza daaju na. sama waay la. <laughs> mënu cee ñàkk mais yaa oustaz euh, dama xëy euh, gis benn vidéo boo xamante ni dama ko déggee dafa maa metti lool ndax. Ousmane Sonko fee mu nekk dañuy ñaan yàlla mu génn fa lool waaye dafa am ci ñoo xamante ni ñoom la àndal des fois nañuy waxee xëy na peut-être seen xam-xam moo moo moo soriwul wala peut-être bëgg-bëgg gu ëpp moo leen sonal ku ci mel ni Cheikh Niass ne euh, tas li nga xamante ni moo di lislaam moo gën a yomb tas Pastef wax jooju doon loo xamante ni lu diis la man trop ci man. man benn problème laa am problème bi ma am mooy mënuma ormal deretu la xaaju Malick teg leen ci kaw bëgg a jël beneen doomu soxna di ko wàcce man ku ma ñu ne ma ci sant yi ñu ormal ci réew mi rek la sant rek damay arriéraat parce que ku wax ci njaboot Sédaaj Malick maa am lu ma naqari waaye nag du ma tontu man du ma kenn. Mhm. ku wax ci njabootu Baye Niass noonu maam Baye Niass noonu boo ma daan seetaan man nag Baye Ahmed Khalifa Koor mhm. boo xoolee du ma ko offensé mhm. parce que maa ngi xool direct wali bi mu bokk mais du moom laay mais bi nga nee ma Niass la sant rek damay wax ni am na ñoo xam ne Mohamed dañ leen a war a fay ñuy wax am na ñoo xam ne dañ leen a war a fay ñu noppi Mhm. koo xam ni saa yoo waxee mu lakk ay xol lakk ay doomu aadama ci seen pas-pas rek waratoo wax mais damay wax ni ak wax ji du mënoon demee ginnaaw ñas la sant li tax mënuma ko offensé ndax ormal deretu maamam waaye bu doon maay moom wax ji waroon naa gën a mën a rafetee neneen surtout borom xam-xam ndax diine l'islam ngay tëkkaleeg parti politique yëfi yàlla lu yàlla wax ni maa ko moom inna diina indallahi al islam mhm. yàlla nee na diine pire la dalee ca maam aadama ba ca Iisa effacé naa lépp benn diine mooy exister mooy diine l'islam man yàlla maa ko téyel sama bopp diine jooju boo demee ba yemale ko ak benn parti war ngaa xoolaat sa bopp du wax joo xamante ni jullit war na koy wax mhm. ça veut dire que nag nit dina noo xamante ni li bi waxoon rek dama naan sama waa ji kenn du moom nee na lay sa sadiidu bi suratin yonente bi nee na jàmbaar nekkul ci dënn bu jóg nekkul ci gaaw a dóor nekkul ci neex ay tànk inna ma sadiidu jàmbaar piir man yamliku nafsahu mooy kii am maîtrise indal xada bi saa yu meree bari na ko waxoon daaw wala daawaate jéeg ñu indil la vaar say njaboot di ko seetaan ngay bokkandoog ñoom boolu añ ñuy jot ci vidéo yi ngay dégg son bi di am sa fi nga toog li waral lool nag mooy wax-wax joo xamante ni daf lay lor mhm. dama leen di ñaan mboolem yéen ñi politique bu leen jëlati l'islam di ko comparer ak parti politique yi ndax parti yi amul julli wala déet parti yi du charia parti yi du xaqiqa ay nit yu wóolante la yaakaar benn nit ànd ak moom réew mi nag bu fekkente ni boo fareek Sonko yaay jantal yaa baax yaa gën boo fareek Macky sàll yaay xaj yaay nangam loolu nag du ànd fii kenn ku ne da ngay xool kii la neex nga ànd ak moom yéen ñii di xeex bi takk jota jabar jotee ci yéen am na jigéen nu ngeen romb ñu am ñaari nopp am bakken am ay ay ay tànk am ay loxo ngeen teggi leen fa xooli ña leen neex ngeen takk leen indi ci seen i kër noonu kooku leen neexee noonu la parti politique yi kenn ku ne am ki ko neex nit ñi nañ leen bàyyi seen liberté mhm. kenn ku nekk gëm ki nga gëm mais communication yi ñuy def ñu wàññi ko bàyyi ko saaga yi ñuy def ñu wàññi ko bàyyi ko lakk yi ñuy jiiñanteeg kii policier lakk oto oto beeg di wa def li Sénégal nit ñi Afrique ñoo ci gën a tardé seet suñuy télé ci gën a tardé suñuy télé bu dee cinq émissions mooy daw par jour quatre et demi yëpp politique lay waxtaane nga toog trois heures de temps ci benn plateau yokkoo daray àdduna lu dul moom la du moom ñun ñu ngi naxante war na xool suñu bopp. macha allah euh, kàddu yu rafet na yaa oustaz euh, question bi nga xamante ni moom la ñuy tëjee euh, maanaam lan moo tax sëy yu bari léegi xaw ma nañ koy takkee moo dëgërul xaw xaw ma ñaan gi moo baaxul bu dañuy day tas rek dañuy takk léegi mu tas léegi aussi buñ tasee ci statut lañ koy wane la ñuy xamee ni sey bi tas na lan mooy waral loolu yow sas takk yi baax na ñaan yi assuré na ña yoru sëy yaa amul pas-pas su toog di sëy mm-hmm. yow boo ma waxoon damaa bëgg a takk soxna mm-hmm. dama naan la bàyyil ba ci kanam bu ci dugg léegi parce que réew mi moo tollu jamono yu buuxante mm-hmm. ak jamonoy nangam laa am te ku mel ni oustaz Mouhamed Mbaye bu la leeree ni man Mouhamed Mbaye mii sama salaire kat mënta yor soxna bokk na ci li may gën a tardeel mooy nit jabar kenn ko mat dañ koy mën léeg-léeg sa lu tax takkagoo jabar dañ la ko wax ba dugal la ci romb la da nga daan sol ay Timberline di sol ay box ba ci yàgg ngay sol ay Marrakech su 1500 ñu ne ah sa waay temps yi dellu na ginnaaw de sénégalais moo bëggul ko avancé gis nga ab Saliou mhm. xale yu jigéen yi ma gis génération bii ñu toll li tubaab naan anglais naan téegi tiisi téegi tiisi ndànk ndànk rek <laughs> ndànk parce que da ngay daje xale bu jigéen faatu gën ñaa laa gis mu la damaa sëy woon nga dajeek moom nag dafa mel ni ñoom secret bi ci am benn doom la ne. benn xale bu góor la ñu yor wala benn xale bu jigéen. man loolu tamit jaaxal na ma. foo newoon nga ni diw delloo naa ko ndeyam ak baayam te yow da ngaa fàtte ne yow lañ jëli woon yow la delloo. jigéen dafa am ñaar ci sëy góor am ñaar ci sëy Mouhamed jigéen dafa am ñaar ci sëy góor am ñaar ci sëy kaat yooyu kenn ku ne boo xamul say ñaar sëy bi du dem jigéen par dafa war a tooñ. di mm. laaj góor dafa war a muñ di joxe. Mm-hmm. lii bu amul. benn sëy du toog dama ne la gis nga Hamza ñeent yi ñooy daje ci sëy jigéen day tooñ par force di laaj par force góor day muñ par force di joxe par force boo ko deful tey sëy bi du yàgg man journée bu ne lu mu gàtt-gàtt dinaa am trois messages quatre messages ci ay divorce tey dama xëy rek ni sama TikTok parce que lu tax ma defe noonu mooy lan la góor ñi di téye boomu jàmbur yi Abdou Saliou man ku ma xool ni may ma baat man la mandi woo nga ni ma déedéet feebaroo déedéet liggéeyuñ la nga ni ma déedéet man la may naa la mu jeex benn baat rek laay bañ ñu koy wax loon ko neex na waaye ko bàyyi mu dem ak mbagam man jullit laa damay xool li gën a rafet ci génnee ci gémmiñu yonent bi ma koy wax mooy silman xataa ak yonent bi nee na jàppal ku la bàyyi wa ahsin ila man asaa ilayka del rafetal ci ku ñaawale jëme ci yow mm-hmm. bu desee lu dul wax nag yonent bi ni wax xulil xaq walaw ala nafsika del wax dëgg doonte dañu lay rey waaye jigéen yi sëyetuñu heure menage bee leen sonal. Mhm. yére yu nduroo yi leen sonal. Mhm. time time boobu nu mu tudd. any time any time boobu leen sonal. bu may xool xale jigéen ñu sol yu gàtt woddoo ay sëru beeco wala ñu woddoo ay nalli damay am problème. Mhm. parce que li tax may am problème mooy wàllu yàlla yi war a judd ñu ngi ci kaw. mais yaay yi fi des la ñuy xool ñan la war a doon pour ñu jaaree ci moom ba ba ñu ba Seydil Hadji Malick di way yaay yonent bi dafa ni wahiya avant muy ëmb yonent bi. xëy na isin jooja la jamono avant yàlla di ko tànn am na papa am na yaay ala nisa sharafan moo gënoon a tëdd jigéen ñëpp wa nisbatan ak ci askan wafti xaaran ak di puukuréewu min jududihim ci ay maam yaay yonent bi ay yaaye ko jur mhm. mais lu defal yàlla ba yàlla may ko mu allah ji yonent bi laa leen wax natt leen ko yonent bi biir bu mu jaar war ngaa xam ne kooku nu mu mel mhm. xool leen góor gi mu jaar kon gën góor la ñun wallahi ñun suñu génération comme ay robinet mbedd ku ñu sottil la ñun góor ñi Mouhamed mais gis nga ñun góor ñi période bi jeunesse jeunesse bi kumro bi ne bedd amunu xoola xale bu jigéen bu nu doxaan rek pour ñoom soq rek waaye léegi loolu boo ko bëggee def xale jigéen yi nga xamante ne tey jii ñu ngi leen di wax ni leen léegi am na affaire ndaw yu jaay. Mhm. wan leen ko ñu teg seen bët mais dalal nañ seen xel. amatuñu stress. mais mais mais bon kiiw artificiel ndaw artificiel yi bon maanaam euh, virginité artificielle mais mais yow saas loolu tamit waruñu cee loolu xam naa nañ bàyyi ba beneen. waaye naa na koy xam naa la xamal dara gis nga foo mu sa gas. Mhm. ba suulaat boo fa tegee sa tànk faw mu nooy. loolu nag innocent du ko xam. dégg ma yow sax nga ni foo musa gas. boo ko suulaatee. <laughs> même boo tegee sa ci kaw di nga xam ni fi musoon nañ koo gas. Mhm. loolu ndax daanaka koy koy xam expert la expert bi yónneel ndax mos naa fee def ak yow <laughs> a ay booy li ngay wax Mouhamed xam na li may wax kii xam na li may wax. xam nga alaaji <laughs> góor li ko yàlla dénk amul ay mbagg danaan la fii lay ni jurux dugg yaay yaay yaay yaay sol slip yaay sol baa yaay sol jean xale yu góor yi dinañ la nax nan la booy xanaa tàngoo sa périg bi gis nga bis bis bis bu la naxee ba périg bi dañ wallahi xoolal lu raw périg bee dañ wala booy sigmi sa dàll day jël suuf suuf soosu ci ci lañ lay topp nan la suuf si ba mujj nga suus <laughs> ñun lañ xamee. wa tabaarakallah xam naa ne bu continuer daa dégg lu ma wóor te dégg <laughs> eh, yaa oustaz naa ci yow di la joxaat sa wàccuwaay yaa oustaz lan ngay lan ngay lan ngay eh, baaxee eh, xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi bëgg fee bëgg fee am lu ñu suturloo bëgg am lu ñu terale seen i wayjur lan nga leen jox yóbbal. nga Abdou. Mhm. man du yedd kenn mbir yëpp tolluwaay la. Mhm. xam nga lu tax. parce que am na ku mës a dem ci gaal yi egg romb ku tukkeegul mhm. gaare otoom sànni leen 1000 francs yóbbu yaayam màkk yow nga jàkkaarloog moom di borom jom xam ni kii ci gaal yi la demoon boo diggaatee gaal yi lu la waaye wax ci àdduna jaar ci rek mooy sa problème mhm. parce que da nga naan kii ëpp ma jom ëpp ma fayda moo tax du ma du ma du ma yedd kenn kuy dem ci gaal naan la bul dema bul dem parce que tolluwaayu nit la rek mhm. ki dajale xaalisam moo la gën a xam gis nga fii benn yoon wóoru fi avion kenn moomu ko mën na xëy daanu. Mhm. otoog nit samedi dimanche bi passé samedi laa jugee Ross Béthio ñëw bay génn Louga benn boy boo xam ni étudiant la benn 307 ko romb bu mu arrêté ko. 307 mhm. bi yóbbaale ko biñ demee bay génn ngaay 307 bi rombante ak benn camion sama kanam maa ngi ko def sama sama TikTok bu gis nga ko. Mhm. xoolal booy bu ñu yóbbaale rek étudiant biñ tollee foofu la la la camion bi dóor dóor dóor dóor 307 bi. waa ji wëndeel ak oto bi dóor ko ci miir moom booy bi ñu yóbbaale moo dee hémorragie interne ci saa si sama kanam. ku ko waxoon ni ko oto bi bu la yóbbaalee di dee du ko jaral dox yoon wi ça dire que dee yàlla moo ko moom mhm. xale yi tamit li nit ñi wax naan xale yi dañoo xaru ci gaal kan moo naan maa ngi dem xaru ji di yóbbu di gis kuy xaru di fay 400000 amul fenn wala 600000 wala 800000 amul fenn nañuy bàyyi xel ñoom itam ni la ndongoloo wayoon ni bul bëgg dëkk ba dem fa bu dëkk ba bëggee demal toog mhm. Abdou man nitumee jaala mhm. est-ce que mus naa dem mbir yi nekkul foofu mbir yi mu ngi ci xaar yàlla. Mhm. ba mu jot nga dem. bu yàlla ne ala ko ñaata nit lañ refilé. bëri na am na kilifa gu siiw a siiw a siiw a siiw daa dem fii di déposer visa Amérique ku siiw ci Sénégal ñu rejeté ko. Mhm. société la mu tourné waa demaat ñu de ñu rejeté waat ko waaw kooku nga xam ni day fay ay nit dem ñu rejeté ko. nga xam ni yàlla moo fa ne mooy mu dugg fa. Mhm. ak mu fa waree dugg day dugg. mais du ma ni booy yi bàyyi leen gaal yi du ma leen ko wax leen wax ni leen yàlla na leen yàlla may xel mu ngeen di xalaate ak fu ngeen mën a jaar pour réussir ndax wallahi kenn ku ne boo xalaatee ni sama yaay maa ko war a yóbbu Makka sama yaay maa ko war a jënd oto mu dugg ci Abdou man bu ma ànd ak sama yaay sama oto taal kilim nii di moom gis nga ko sama estate kontaan mhm. parce que lan moo tax mooy man maay caatam bu may firi ba sama toog ci mbooloo ba nit ñi di fi tasu di yuuxu dama naan sama yaay ngi ne la toog ndeysaan ma ñi ñaa ngi ma yuuxu te moo ma jur mhm. bu ma paree damay dox ba ci moom léegi nag am na koo xam ne mën na la xool ni oustaz ni muy firee noonu laay firee mhm. bu boobaa dootul xool coono mais day jàngi mhm. mais ñi dem ci gaal yi itamit fay 400000 fay 500000 jënd ay bonbon barke alxuraanul karim bëgguñu dara lu teral seen njaboot macha allah kon faw ñu leen di comprendre mais demuñu rek pour dee ñu defar réew mi réew mi ñaar ko yàq politique bu bari ak sosalaate bu bari Sénégal ñett boo ko fi amee am nga problème boo fi amee tur am nga problème dan lay gasal kàmb mhm. boo fi amee alal ñu jiñ la franc-maçon wala góor jigéen mhm. boo maandoo ñu la ma ngay jaay dorog mhm. kuy dund booy dox di téer ñu la da nga ngàmmaaral <laughs> ngay dox di sëgg ñu la a liggéey kenn war dalatul ngay seeti mbokk gi ñu ne daa am jot amul métier nga nekk sa bopp ñu ni xool bee bon moo tax du seeti kenn bu mbooloo toogee ngay ree ñu ni xool ko dafa saf xorom ba bari wax boo toogee ci mbooloo ni tekk ñu ni xool bee bon moo tax du wax ak kenn waaw kañ nooy def xanaa ma <laughs> Euh, tabaarakallah ma Oustaz waxtaan bi euh, yaa Oustaz waxtaan bi neex na lool euh, yaakaar naa ne aussi tamit dina neex ñi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel biir dakaar Buzz di ñaan lépp loo xamante ni dëgg na ci rek ngeen xamante ni sunu sunu sunu matadi la di ñaan sunu borom mi nga xamante ni moo di borom jàmm yàlla na def jàmm ci réew mi Serigne Mountakha Mbacké yàlla na yàlla guddal fanam ak bépp kilifa diine noonu laa koy ñaanale ka nga xamante ni moo nekk ci Tiwaawan ka nga xamante ni moo nekk ca ak ka nga xamante ni moo nekk ca Kaolack di ñaanal ñëpp jàmm Aziz Ndiaye li nga def defaloo ko sa bopp mais da nga koo defal képp koo xamante ni yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yàlla na la sunu borom teg ci barki Seydina Mohamed Ibil Jador moom la ñuy màggale Ibil Jador moom la ñuy gàmmoo Ibil Jador moom mooy dem fépp kon dem leen ngir uti Ibil Jador man fi mu toll nii engagement musuma koo jël ñoo war a wut diw boo xam ni sax day baax spécial pour sikkim yi. waaw <laughs> j'adore ñu ko ciy diw sikkim j'adore loolu Aziz da koy kii. man jël naa samay engagement ci yow bu xam naa ma dem ñu naan booy bi day dóor Aziz. man maa la ko sant. doo kuy maa la ko mhm. taalibi Cheikhul Khadim nga. Mhm. mais acte nga mhm. def na ci Tiwaawan. mais nga ni nga ni nga parce man gëwuma jumaay Tiwaawan jumaay Touba man bu ma ñu naan Mouhamed Mbaye dafa bëgg njabootu sëñ Touba damay am kersa ay jullit ni man mais yow lan moo tax ngay seetaan match Ronaldo dugal wala Ronaldinho dugal wala keneen wala Messi nga yuuxu daw këdd daw dóor fii dóor fële waddal sànni sa portable waaye yow victoire boobu loolu ci Messi yi jox boo ko mënee nangul Messi ci tubaab bu xees boo bokkalul diine bokkoo leen tarixa bokkoo leen réew waay waay mag mi nga bokkal réew mu mën la taggal yonente bi ba nga sopp ko lan moo ci différence Abdou Aziz wallahi ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay kontaane ndax bari na tey borom alal yuy fipp grâce à toi yal na yàlla jàppale la ta ngay ndaw mënoon nga koo def ci ay kër mënoon nga ko def ci ay oto di ko tiitaroo mënoon nga ko taxawàlloo waaye wallahi jëflante ak Seex Seydil Xaaji Malik de yàlla nga jëflanteel te yàlla nee na ku ma tabaxal benn jumaa man yàlla ma tabaxal la néegu aljana néegu yàlla nag buñ ko nattable ak ñun suñu néeg ndax liir bi nekk ci biiru ndayam jàpp na ni foofu la àdduna yam yow mi nekk ci néeg bi jàpp nga ni fii la yaatuwaayam yàlla na yàlla suturaal la Abdou Aziz chaque jour dee ko tudd.